maa leen di gërëm yéen ñi ma may ma jottali leen kàddu gi nga xam ni moo ma sant ma wax ko fi ci kuréel bi nga xam ne dañu daje ngir màggal góor gi xam ngeen ni defoon nañ ko bi mu amee juróom ñeent fukk at euh, nga euh, boo defee loolu mu am téeméeri at nga ñëw euh, dal di def tollamti ko dal di ko baamtuwaat loolu dafay wane ni ah da ñaan loolu itam yow nga am ko ñu bare euh, loolu euh, la ñuy ñaan yàlla may ñu ñu am téeméeri at ak lu ko weesu euh, li tax itam ñu def mbir mi mooy ku def ca dëgg-dëgg li mu def ci Sénégal ci Afrique ci àdduna ku ko def dañ la war sargal màggal ko ñaareelu mbir bi am maanaam mooy jokkoo ak waxtaan wi am ci diggante maas yi ñi nga xam ni seen jamono euh, yàgg na ak ñi nga xam ni jamono jii lañu ñu fi juddu euh, ñooñu euh, xale yi war nañu waxtaan ak mag ñi mag ñi itam waxtaan ak xale yi loolu moo tax itam ñuy màggal bés bi màggal bi nag daañ ko def ci atum lëmm ndaxte mbiram Euh, daanaka dafa am maanaa maanaa boo xam ni mënoo ko def ci benn bés mënoo ko def ci benn weer euh, ndaxte mbirum njàng dafa am maanaa njàng bu barkeel njàng xarala njàng xam-xam njàng bu setantal ak lu bare lu nga xam ni njàng ak xam-xam moo koy may mbirum kaaraange ndaxte moom xam nga dem na guerre gis na mbir yi yore avion yi di nawal euh, dawal avion ak di réparer avion moom jaar na liggéey boobu te jafe-jafe yi mu amoon bi muy jàng itam yooyu yëpp dañ ciy waxtaan euh, ñetteel bi mbir mi mooy li mu doon euh, mébét li mu doon def ngir doomu Adama jëm kanam doomu Sénégal moom boppam li waxtu woowu bi mu ko doon def ak jafe-jafe yi mu ci amoon ak ndam yi mu ci am ak jafe-jafe yooyu yëpp dañ ci dellu si loolu tax itam màggal ko dana tax ni ñi xool euh, ni ñu fexe ba euh, àdduna euh, doon lu nga xam ni ñun ñëpp dañ ci am mbégte ni muy wéyee looloo tax màggal ko màggal itam doomu aadama la loolu tax ñuy ñaan mbokk yi am di jàmm yi waa réew mi ñoom ñëpp ñu ñëw teewe mbir mi ak itam bokk ci jokkoo bi ndaxte xëy na ñëpp duñu mën a teew waaye eh, di ñaan yàlla mbas mi itam jóge fi ba nga xam ni xëy na waxtaan yi daañu ko gën a yaatal euh, euh, ñaari fukki fan ci weer wi rek dañuy ubbi euh, kilifa yu mag nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew daañu ñëw bon nag waa senegal ñu dal itam fexe ba jàmm am fi waaw loolu nit mën na sa koo def waxtaan ci eh, lu bare bare Euh, nu ñu fexe mbirum njàng mi mbirum wér-gu-yaram yooyu yëpp góor gi sax am na lu mu ci wax ndaxte fan yi ñaan nañ ko mu wax am na lu mu wax xëy na daañu fexe ba nit ñi dégg ko euh, bu waxee itam nit ñi bëgg laaj ñu laaj ko waaw jaar-jaaram ku nekk mën nga si jàngat xam nga euh, royukaay la ndaxte ku jaar fi mu jaar yàlla may la Sénégal nga nekk fi ministre nga dem ci eh, eh, mbootaayu xeet yi mbirum xam-xam ak xarala euh, yow nga yore ko moom may na leen yéen euh, journalistes yi ngeen di gën a am seen aq ngeen xam si yëleef euh, xëy na nag ñi ko doon bunduxatal bëgg ko fitnaal ñooñu dañu bëggoon adduna mu mel ni muy mel rek ñu ku mën sa morom daan te moom moom àndul woon ci loolu dafa ni nit ñi nañu juboo jéem a seet lu jaadu ñu ànd ci te ku nekk di dimbale itam sa morom boo ko mënee dimbale loolu la doon wax loolu tax lu nekk gis nañ ko euh, ndoxatal ko sonal ko ñi ko doon def ñëpp xam nañ leen euh, euh, ñooñu mooy ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci àdduna yaakaar ni doole rek mooy wéy loolu moom àndu ci woon te waxoon na ko loolu tax xeex nañ ko waaye xam nga tal bu yàlla tal sànni ci mat moo gën di ko fay. waaw ah, loolu euh, loolu la euh, dundam wane bon moom góor gi fi am na fit li muy wax da koy wax te nag loolu nga wax royukaay la dem di déglu ak nangu jàng jàng na alxuraan jàng na jàngu euh, tubaab yi jàng na lu bare ci mbirum xam-xam ak mën-mën te itam dafa biiroon ndaxte dafa doon weccoo ak di ci waxtaan ak ñi mu maaseel ak ñi nga xam ni itam moom moo leen mag xam nga nag moom boo soo wax ci mbiram daa wax ci mbirum sengoor daa wax ci mbirum Lamine Gueye euh, daa wax ci mbirum Mamadou Dia euh, daa wax ci mbirum ñoom Masmoud Diop daa wax ci mbirum euh, Ablaye Wade ñoom ñëpp xam nga xamante nañu moom ci ñi jëkk mbootaayu étudiants yi ca fa nekkoon France boobu xam ni ñu fa moom moo ko jëkk jiite bon yooyu yëpp laaj nañ ñuy waxtaan ci na mu doon demee Euh, ak itam bi mu jànkoonteel ak jafe-jafe yi fii ci réew mi euh, keroog bi dëkk bi demee ba nit ñi sax yaakaar ni armée dina jël pouvoir mais 68 moom euh, fekke na ko am na lu mu wax ñun déglu nañ ko yëf yi ni mu demee yooyu loolu tax ku nekk daal war nga ñëw déglu ak xool ndaxte dana am benn dënd bu nga xam ni fële nga xam ni mooy musée des civilisations noires maanaam fi nga xam ni euh, euh, dañu fa def kër gu mag nga xam ni euh, tarixu doomu nit ku ñuul ak tarixu doomu aadama sax boo demee daak fa gis te fan yi boo fa demee ñoo ngi fay dënd mbirum diine yi am ci Afrique li mu bokk ak diine yooyu yëpp ñoo ngi ko fay wone ak yeneen ak yeneen kooku daañ fa dem am na beneen bu nga xam ne daañu ko def sax ci musée bi nekk Théodore Monod janook assemblée nationale pencum réew mi foofu itam dana am daañu fa wax mbirum euh, euh, euh, xarala yi waaye daañu fa wax itam nataal yeeg ak fent yi nit di fent yu bare bare moom moom daal Sénégal daañu dem ci diwaan yu bare diwaan bu ñu ñëw itam xëy na la fa xew te mu am njariñ ñooñu dañ ko génne nit ñi itam wax leen li nga xam ni itam am na njariñ ñu koy weccoo yooyu yëpp dana ci am donc université bi ñu ko tuddee fii ci Dakar ñoom tamit daañu woote université Dakar bii dana woote yeneen université yi euh, moo xam bu Ziguinchor moo xam bu Bambey moo xam bu Thiès euh, ñoom ñëpp euh, daanaka ni dañ fay dem donc waxtaan ak ñoom loolu yëpp ci at bi dana am daal incha allah.